la loi encore, monsieur le ministre Ismaël Major Soir, est impersonnelle et universelle. Mais quand il s'agit de Pasteur et de Ousmane Sonko, les lois sont personnelles.

xaaral après ngay tuddee bilan bi ah. mais dama wax il faut lii la wax après da ngay mun am benn élément nga ne li mu wax mi ngi nii xam nga dans la question ñii seetaan xaaral waxoon mais am yow parfois li ngay wax de bonne foi de bonne foi man yenn saa yi li wax du loolu da jub

mais loolu ku ko wax mais mais mais mais loolu code pénal moom moo ko prévoir c'est-à-dire que c'est c'est jeter le discrédit sur des institutions on soupçonne la gendarmerie d'avoir assassiné des gens loolu ku ko wax après yow da nga mu toog këram ñu ne loolu dara. mais délit mineur monsieur le ministre. délit mineur waaw on Ziar kontaanee jox cër mbokk àdduna ziar kontaanee jox cër mbokk internet c'est le bon TV kon naa réew mi ci seen chaîne la chaîne de la vérité seen chronique comme ni ñu leen koy defalee saa su ci actualité réew mi ngeen jëggal ma nag fan yi xaw ngeen ma gëj a gis. xaw ngeen ma rar mais nekkon ci business nek ci liggéey rek am mbekté bu baax ci top gi ngeen ñuy top ak djublu euh, bi ngeen djublu sen bi di c'est bon tv di len wax ni ngeen gën di abonné ndax lay jën dox la lay saxar ray la mais lay chaîne youtube site internet abonnement la aimer commentaire partager kon nag gaay ngeen gëna massifier di waxit ku am ñaari jën yoo maye mayal ku la neex mais soo bëggee dégg-dëgg jàppal c'est le TV di bëggee suma partenaire suma xarit suma mag Cheikh Ahmadou Bamba Mboup borom global excellence group nekk fële ca Parcelles yi unité 22 villa numéro 244 di nuyu mon ami mon frère Serigne Samb alias Zos ko Sococim di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi bëggee. tey nag gars yi comme ni ma leen ko wanee ci commencement vidéo bi euh, Ismaïla Madior Fall. un soi-disant ministre de la République, un soi-disant garde des sceaux. Garde des sceaux, nak, le ministre de la Justice. Celui qui garde les sceaux de la République, moi, les symboles, moi, yon, moi, les gars, le gars sensible, moi, pouvoir spécial, moi, pouvoir euh, judiciaire, qui nga xamanteni mom mo len représenter comme un ministre ngeen dégg cadre yi mi yëkëti euh kaddu yo xamné tay képp képp ko xamné rek doomu aadama nga da ngay am gàcce da ngay am regret da nga naan lan moo xew la gelwaar laajoon lu dal suñu askan. te képp koo xam ne tiituloo ci Sénégal ni muy doxee amuloo xel ki nga xam ne moom lañ ne ministre de la république garde des so institution bu toll ni justice ki nga xam ne moo leen représenté nga xam ne moom. ki nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, procureur de la république l'avocat de la société maanaam kooku kilifaam la nga ki nga ministre de la justice premier avocat de la société parti politique un parti politique pour défendre la société défendre aussi la justice parce que justice texte justice ay loi la justice règlement la di xaar war ñoo jaaxal ci mbirum il faut que ministre de la justice nous wax ñu soog a xam fan la ñuy teg suñu kon bu boba jar woon ñuy bind ay code pénal ay code de procédure naan ay si si si code bi ni code 37 une code code 18 li tax ñu bind ay code bind circonstances, bu nek ak ay délit ak ay ak ay ay procédure pour que fu waay mën a toog xam li ko yoon may ak li ko yoon xañ ak bu tollee fii procédure bii bu tollee fii nii nga war a doxalee procédure bi nii lañ koy doxalee boo nekkee ci étape bi lii moom étape bi li moom ma say àq li ma boo nekkee si étape B boo nekkee mandat dépôt bu la jàppee par instruction buñ la bu ñu la bu ñu la bu la jàppee flagrant délit bu ñu la jàppee bu ñu la jugé par contumace bu ñu la boo nekkee bu la jugé par contumace boo nekkee max lii la ci loi wax maanaam loolu c'est déjà calé dañ ko tek parce que lolu luñu bind le tek ko bamou nopi mais pourquoi nos journalistes man xaw il se manam dañuy dof doflu xawma ma danoo dof xawma dañu bëgg nax société bi parce que bu fekkee Fatou Abdou Ndiaye wala journaliste en général bu bu ministre de la justice nanko dañu bëgg nga léralal ñu ministre de la justice amul lu ñuy léralal ci li loi wax parce que ça veut des fois nak politiciens yi bëggu di ñu nax nan ñu droit jangulon droit avocat bu bari wax bi moko daan wax di ndax sénégalais bo bëggé wax ci droit ci lu leen arrangé wu ñu na nopil jangoo droit mais ñak nga droit ak wax li droit bind c'est deux choses qui est différent ñak jang droit ça ne veut pas dire que nga baña xam lan la yoon wax parce que li yoon wax yëpp ay texte la te ku ko lire mën ko xam celui qui savent lire le français correctement wala sax comme man mi nga xam ne mënumaa lire français correctement damay takalé mais suñu ma joxé loi mën na ko lire xam la ta nekk. kon est-ce que débat public débat justice bu egsi public bi est-ce que ñi jang droit rek ñoo ci war xam dara loolu du dëgg te loolu la ñuy jéem imposer yow journaliste bi wara inter bu wara dalal ministre de la justice wala kuy yëngu ci walu yoon mais yow au moins même bo jàngul droit war nga am tuuti notion ci walu droit war nga am texte li ngay li koy war nga laaj war nga indi texte yi indi code bi indi fi ko loi wax nga xamni yow fofu ngay pour def question pour man Fatou Abdou Ndiaye yow mi ak dalal garde des wala le soi-disant des sceaux koy wax professeur je pense que amna fum la jangal je pense que peut-être jang nga droit sax nga droit wala droit parce que c'est pas important ça ne veut pas dire que droit waruloo xam lan la loi wax c'est mbir mu ñuy sénégalais la depuis le début c'est pas important nga dem def dem dem fac de droit wala nga def droit pour mën xam lan la texte yi wax ak lan la règlement yi wax ci condition ci circonstance bu nek parce que loi ou réew moo ne nul n'est au-dessus de la loi doyul mu ne waat nul n'est censé d'ignorer la loi ministre de la république lolu xana ñu lolu moy lan kenn nekul ci kaw yoon waaye kenn warta umpale yoon wa léegi lolu bu ngeen ñuko waxé ba paré ba paré su débat wu yoon tegoo ci penc mi nit ñi mën a dem ci texte yi référé wu fa liir la mu bind ñu ñëw waxtaanee ko ku nar a wax ñu ne ko noppil parce que jànguloo droit wala boog dañuy invité ministre de la république moom mooy wax ba pare ci condition boobu ñu xaa ko xam ban position la ñuy jël kon jaru woon ñuy bind texte yi ak loi yi nañu bàyyi rek bu dara xewee ñu ne nañ invité ministre de la justice wala nañ invité euh, ku jàng droit mu wax ñu lan la ci yoon wax ñun comme ñun ay dof lan waruñoo mën a xam lu loi wax ku ko jàng waxul xam ah, mais arrêté leen arrêtez d'insulter l'intelligence des Sénégalais de may ci malhonnêteté wala honneur bi ministre euh, Ismaël Madior Fall am ak ak république bi république juste pour cette cause pour défendre ay bëgg-bëggam de ma ci il faut ma presse bi ngi waroo leen invité nit muy wax lu dul dëgg ñi ko invité dem ci la ngeen ko invité ngir bu bu wax du en tout cas ni ko bindee ci code sangam article sàng ak ni ko ni c'est pas la même chose lan moo fi changé. wala l'autre fois yow bi ngay wax la nga wax ak la nga wax ci ci même sujet bi parce que Madior Fall ci sujet Max Ousmane Sonko mais contradiction mais à quoi c'est ça sert nga invité nit ba paré mu jóge fa mbir mi gën a lëndëm te léegi sunu presse bi dañuy inviter nit mu ñëw tok manam pour moo mu léral mais da fay a lëndëm ci bop nit ñi té pour man la presse c'était pour léral li lëndëm su ngeen xasee ba inviter nit mu jug fa tok ah, suspicion yu nekkoon ci bop sénégalais yépp ci walu momu ci domaine bobu dafa war a leer mais tay la affaire bi gën a lëndëm parce que Ismaïla Madior Fall da ngeen ko bayyi mu tok ci plateau bi di wax lu ko neex lo xamni du deug yéen ko gëna xam ndax man mbërum làmb laa xaw dara ci droit mais mën naa lire mais lire na li Ismaïla Madior Fall wax ci contimance ak décision bu définitive ak radiation ak limu wax ci euh, Fadilou Keita ak nimu nimu ni accusé ñi Fadilou Keita ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kasso bi mais loolu mu wax juger leen fofu mu toog taxe les taxe Fadilou Keita quelqu'un qui insulte qui insulte les gendarmes la gendarmerie nationale ba tax ñu tëj ko ci kaso bi wala dafa def interview te Fadilou kayta deful interview saagawul ñi nga xamanteni ñom ñoy suñu corps armé bi wala gendarmerie saagawu len deful interview post sur Facebook la def ne j'espère que vous n'avez pas tué mon frère mais Fatou Abdou yéen ñi dalal Ismaïla Madior Fall xam ngeen ni limi wax du deug mais pourquoi le laisser muy ba paré ñuy juger ñi nga xam ni ñoo ngi ci biir kasso bi te ba léegi dañoo am seen présomption d'innocence en tant que ministre de la justice nga toog di juger ñoo xam ne tey yow yaa waroon doon seen avocat ngir lan ngir benn appartenance benn parti wala benn chef bu nekk ci pale bi nga bëgg koo neexal ci suñuy institution ak suñuy charte ak suñuy loi yu ñu bokk di ko falsifier ngir bëgg lu ko neex mais arrêté leen ko xamal ko ne Fadilou Keita mi muy chargé ak ñi muy chargé ñu nekk ci kaso bi ay doomu jàmbur lañ Ousmane Sonko mi muy tuumaal ba bëgg bi salficier suñuy chart ngir bëgg koo xañ ay àqam kooku sénégalais te les lois sont faites pour l'apaisement, pour le bien-être de la population, de la société. Ce n'est pas pour le bien-être d'un groupe de personnes ou d'un régime. Et la loi encore, monsieur le ministre Ismaël Major Soir, est impersonnelle et universelle. Mais quand il s'agit de Passe et de Ousmane Sonko, les lois sont personnelles. Traitement, il y a un traitement, il y a deux poids, deux mesures. L'IMO moi Ismaël Major, lii moo am yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ne da ngeen di incarner la justice depuis 2012 ba tey une acharnement acharnement bu doy waar ci kaw des personnes yi nga xam ni bokkoo leen ñoom ñoom gis-gis politique. te nag ci réew mi lu nekk ku nekk waroon naa politique ku nekk waroon naa politique ba mu des garde des sceaux ci réew mi ku nekk waroon naa politique ba mu des ministre de l'intérieur bu ci réew mi ku nekk waroon naa politique ba mu des les institutions yi nga xam ñoo gën a soxal réew mais Taïdi, institution yooyu au cœur de la politique on ne parle pas de l'économie pourtant l'économie sénégalaise ça souffre du développement entrepreneuriat de chômage le ministre de la justice tu as le ministre de la jeunesse autant pour moi tu as la population la plus jeune 75 de la population sénégalaise sont jeunes mes frères 75 de la population sénégalaise sont jeunes ministre de la jeunesse il parle plus que politique politicienne que l'emploi des jeunes ministre de la jeunesse il parle dina toog sax eh, les ministres ministre de la justice di gën di wax ni ngay sentir la justice la politisation de la justice tirée au mi ni sentir aussi euh, euh, euh, ministre de l'intérieur sentir ko la le ministre de la jeunesse wala boo ko dee sentir sax du wax ci lu doxal jeunesse bi ma ngay wax ci lu xamante c'est politique wala Ousmane Sonko wala dara ñaari ministres yi gën a dox ci réew mi ak yi gën a actif ba ci période tabaski nga xam ne ministre de la culture de de l' agriculture ak élevage ñooñu ñu doon nekk au top ak commerce ak yooyu ba ci tabaski le ministre de la justice ak le ministre de l' intérieur ñoo gën a nekk au cœur des débats. parce que on a judiciarisé judiciarisé defe naa noonu la la politique ou bien le pays jël ay côté ki règlement teg ko ngir lan chaque instant ñuy falsifier di teg kon Ismaïla Madior Fall yeen ñi ko invité yeen ko may opportunité muy toroxal ay innocent di len chargé di len pousse ci li nga xamanteni ni mom moy gëna metti di yaq li nga xamanteni di len gëna a ci kasso bi exemple ci fenam néna il faut que duñu nangu ñuy tok di def interview à l'occurrence de Fadilou Kayta ngeen ko laaj pour di saga ay gendarme di leen accuser mais waxuloo dëgg monsieur le ministre su dee mérito nga sax turu monsieur le ministre le militant de passe de de de de l'APR monsieur Madior Fall mérito woo monsieur le ministre mais yow waxuloo dëgg Ismaïla Fadilou kayta il n'a jamais accusé qui que ce soit il a fait une interrogation et j'espère que vous n'avez pas tué mon frère lii la bind ngeen jàpp ko tëj ba pare toog ci plateau di ko fenal ba pare dafa def lolu c'est flagrant délit ngeen war ko juger plutôt léegi mu def un an ci bir kaso bi si tu es la le ministre de la justice tu n'es pas digne de représenter la justice parce que lepp lu yone wax yow yaa koy jalgati yow le ministre de la justice le soi-disant garde des sceaux pour lan pour neexal benn nit Fadilou Keita lolu interview la nga wax batay nangul naa la te du interview poste la ay fen la même bu doon interview la def pourquoi ngeen koy yóbbu instruction dafa discrédité dafa accusé ay gendarmerie dafa nañ ay waa gendarmerie ñoo ray frère am lool nga lool nga wax mais interview la mais lutax ngeen koy yob instruction lool fa la gën a délit la kay ya wax li lutax nga wax li jugé leen ko ngeen tej ko condamné ko perpétuité wala ngeen libéré ko mais ngeen bàyyi ko ci kasso bi loolu ban justice la c'est pas important nga dem fac de droit jàng justice pour xam la la taxi wax justice ay texte la justice ay règle la ay texte la ay code la c'est pas la peine nga dem di ko pour xam ko ñëpp buñ ko liiree xam ko te code bi li la wax fa la grand délit képp kuñ ko jappé dañ la wara juger atte la moro def plus de 6 mois ci casse bi pourquoi ñen yobuk instruction la laaj fat Abdou ndjay xam nga lolu laj ko loolu légui légui léegi Fadilou Keita mo saga juge mo accusé mo accusé procureur mo mo saa mo wax dañ euh, moo saaga gendarmerie dañoo rey mais yóbbu fa la dana de nga atte ko te donte lolu du dëgg contrairement né nga képp ku accusé wala ku wax discréditer la justice wala les institutions wala les magistrats dañu mais Madiambal Diagne bi juge bi àttee Ousmane Sonko ci ci ci ci procès Mame Mbaye Niang daal di koy daal di koy daal di koy daal di koy kii mais taxaw lan la ko waxul fii magistrat boobu Madiambal Diagne lan la ko fi traité wul traité nañ ko sax militant Pastef ki fi waxoon ne of nag euh, couleur Pastef la. loolu institution des magistrats n'a de les institutions aux magistrats il n'a pas été intimidé il faut bi bi bi bi bi bi bi cour cour des comptes ay ay ay ay politiciens foo nekkoon bi muy toog naan je suis un ministre su ma convoqué du ma dem moom moom moom moom moom Mansour Faye nga nekkoon autant fan nga nekkoon ci même sujet bi ngay traité Fadilou Keita doomu jàmbur jooju innocent boobu ñu tëj ko ci kaso bi ngeen war ko de ñu war ko setal en tant que ministre de la maa maanu ne ah man du ma sori ci dossier boobu parce que déjà moom dafa am présomption d'innocence man waruma koo waxal waruma cee wax wala il est encore innocent mais da nga ñëw sax di dëggal ni mom mo def interview ta deful interview post la def ta li ko wax lo waxut loolu Fatou Abdou xamna ni euh, Fadilou Kayta waxul loolu yow xam nga ko même les enfants de 2 ans dans ce pays xam nañ ni Fadilou kayta musul wax ni wa wa wa waa gendarmerie wala wa police wala wa ki ñoo ray rakam dafa ne j'espère que vous n'avez pas tué mon frère j'espère une interrogation tudul ko benn corps tudul kenn mais ci même sujet Bobo qui euh, défendent naa citoyen sénégalais comme ñum te nous tous on est égaux devant la loi ah Camara Ahmed Suzanne Camara défendent sénégalais comme ñun comme man comme Fadilou Keita comme Kenen. mais moom ci même sujet bi dafa toog accusé T'as beau procureur ibbi na dossier bi ne dafay def enquête xool lan moo disparaître Didier Badji la xawma ak kee lan moo leen lan moo leen ray, wala lan moo disparaître loo militant ou APR ñëw toog ci plateau ne man j'en quelque chose diw ak diw dañ leen ray les téléphones de Dieu ont parlé Dieu ak dit m'ont même sujet il n'a pas été interpellé la intimidé interpellé par le procureur de la république il n'a pas été interpellé par aucun membre de la justice Regardez ce fi may ak Ismaël Ismaël fen soxor il n'a pas été interpellé trois plateaux Ahmed Suzanne Camara kon bëggatuma kenn nan ma Sénégal nous tous on est devant la loi bëggatuma kenn nan ma Sénégal ñun ñëpp Nous ci kanamu yoon wala Sénégal pays de droit sous le sous la le régime de Macky Sall le Sénégal n'est plus un pays de droit ni de texte ni de loi c'est un pays bo xamni kenn xamul lan la kon nak gars Ismail Ismaïla Major Fall c'est une honte pour li diplomatie sénégalaise Ismaïla Major Fall honte la dañ ko war di di ko ndax warul exemple ci kat warul exemple ci société parce que c'est très dangereux ce gars-là il est très nul man buma on ñu ne borom xam-xam la non science sans conscience n'est que ruine de l'âme man mënuma gëm ni kii xam-xam la parce que xam-xam bu àndut ak jikko bu rafet xam-xam bobu amul xam-xam gu àndut ak yar xam-xam googu amul njariñ te ku am yar du fen te dafa day fen ouvertement di fen te du am complexe day fen bay fenal li këyit bind. c'est ça qui est déplorable maanaam Ismaïla Madior Fall kat ta décret bi mu toll ci fen moo garaaw day fen ba fenal texte texte bi nga xam ne moo ko jàng di ko jàngale Ismaïla Madior Fall pour bégal ki nga xam ne moom mooy papaam mooy. mooy yaayam mooy kilifaam muy Macky dina tax ba mu fen ba fenal loo xam ne moom moo ko bindoon muy wàllu troisième mandat bi moom moo ko def révision moo ko def lépp dem bëgg lu ku neex buuram tax muy fen bay fenal li nga xam moo ko bind moo ko doon défendre démb waaye di fen bay fenal moo soo di fenal suñuy suñuy suñuy suñuy institution suñuy loi muy texte yi nga xam ne moom mooy lañ wax xoolal ci wàllu condamnation bu définitive bu Ousmane Sonko. yow di feenee nga condamnation bi est pas encore définitive fii nga ñëw ne di sa définitive waaw condamnation bu définitive nan nga bu définitive adugul nga ci mën a rajee nga nga ci mën a sukkandikoo ba raje ci nit même bu fekkee ni Ousmane Sonko est un max wala nekkul contumax bi daanuwul mais condamnation bi définitive agul léegi condamnation bi nga xam ne yow nee nga définitive agul fee arrangé woon na la nga ni définitive agul fii mu arrangé la nga ni définitivement léegi ban lañ ciy jàpp en tant que ministre de la justice bu mom moy wax mais lolé je laisse passer mais nit ki nan nga koy jappé ba paré naan waaye dañ ko japp sur autre cause kon contumace bi dañul maanaam Max, il est toujours contumace contumace xaw ma il est toujours il est euh, dañ ko juger par contumace kon contumace kon mom batay mom moom contumace la. waaye légui dañ ngeen da ngeen da ngeen radier mais notifier len ko radiation mais yéen a ngi koy wër kon je pense que ismaël Madior Fall c'est un gars très dangereux pour benn société Comme tes journalistes Sénégal wala boog la certaines parties, nga xam ne la presse dañuy lëndëmal dañoo ànd ak régime bi di lëndëmal askan wi parce que nit ki boo ko invité c'est le minimum ca sujet ba nga ko invité nga am ci ay nga am ci ay lu leer lo xam ay li texte yi wax la tek ko ci sa kanam même boko jangul jàngul lire diko xol diko ci laaj nga xam bu ci waxee lu contraire ak la texte yi wax nga laaj ko ci lola mais li ma ci gëna a métti seen tappale yi maa ngi dégg mu naan koy faat ab naan ko yaa dañ laa invité yow yaa fi war a leeral déedéet Ismaïla Madior Fall loi réew mi moo ko mag te dafay juddu fekk fi loi yi te day dee bàyyi ko fi te les lois sont sont universelles et impersonnelles. ci moom moomu loi yi nga xam ne moom lay wax nekkul moo ko moom ba moom moom la ñu a woo bu teguwul yoon loi yooyu dañoo war a dal ci kaw moom Ismaïla léegi soo ko invité ne ko léegi yow yaa xam yow la ñuy laaj mais kooku da nga jàpp ne xanaa moom loi yeeg texte yeeg réew mi moom en tant que ministre la justice moom moo ko moom. Mom lim ci wax loolu lañ wara japp jàpp te de warut a demee noonu warut a demee ni mom lim wax ci loi ak texte yi loolu déedéet suñ koy interroger dañ koy interroger par rapport ak ci manam bu dé ci max lañ koy ñu dem ci code ba la wax ak règle ak situation de contumace bu ñu ca tolloo lañ ca bind ci loolu nga koy poser question mais du mom limay ñëw di wax ci loolu la japp même bu doon sax il est honnête. waruñu jàpp ay waxam waxuma laan nag moom sukkandeetul si benn texte ak loi dafay falsifier ay texte ak ay loi wu réew mi pour nax sénégalais yi pour am benn cause wala benn résultat politique léegi kooku soo ko invité naan ko yow xam en tant que ministre de la justice mais bu fekkee ni ñun pour ñu àtte benn affaire wala benn condition wala benn circonstance bu ñu ci toppee il faut ministre de la justice ñëw toog moom moo ñu war a wax lii nii la war a demee kon nañ xotti papier xotti loi yi xotti xotti texte yi xotti lépp dindi code pénal bi sànni fule léegi ministre de la justice bu ñu fal rek kooku mooy ñëw ñu ne ko ah ñu de xamuñu dara ci droit parce que yow yaa fi jàng yaa jàngi woon yow yaa xam moo tax ñu fal la yaa moom nit ñi léegi lii nii lan la moo ci xam mu wax après ñu avancé jaratul ñuy bind loi di texte ak loolu kon journaliste lu mu gàtt gàtt war ngaa xam loolu. kon arrêté leen insulter intelligence sénégalais yi bëgg naa moo boobu trop mais dafa bëri sénégalais yu fi nekk di insulter suñuy intelligence. nit yoo xam ne jàpp nañ ñun duñu ay nit ba tax chaque jour ñu invité ay nit mel ni que dañuy leeral waaye dañoo déggoo ci benn mbir ngir gën a lëndamal wala gën gën a mën a toroxal wala gën a suuxal ay nit yoo xam ne fi mu toll nii li ñu gën a soxla mooy ñu jël justice delloo leen seen justice ak seen liberté ko contraire di leen chargé mooy ñi nga xam ñoo nekk ci kaso bi te gis na ministre de la justice ak ñi bokk ci régime bi yëpp heure bu ñu toogee ci plateau yi lu gën a desloo ni ñooñu ci kaso bi dañuy wax lu leen gën a accusé la ñuy wax te ñun ñi nga xam ne tey ñoom ci biti ànd ak ñoom xeex bi te ñun li ñuy wax ak li ñuy def sax Fadilou Keita musu koo def ñu nekk ci kaso bi ñu yaru lañu ñu baax lañ tey ñu jàpp leen sacrifier leen parce que seen position wëlbatikuwaat bëgg a toogaat ci plateau yi di layal du denc boobu ñu leen denc ba di leen fenal ñun ne am nañ as tuuti ñoo ñoo bokk combat war a di leen défendre kon man li ma gën a focus mooy képp koo xamante ni yor nga ndomba tànk nga génn ci plateau yi di gën a accuser ñi nga xam ne ay innocent lañ ñu jël seen i àq yóbbu leen instruction te waru leen fa yóbbu tëj leen ci kaso bi plus de six mois ñu war a wax seen i mbir en tant que ministre de la justice génn di leen gën a chargé

yor ñu di la fay moo tax ñu di wax ak yow mais tekki woo dara tey doo ko tekki ëllëg kon nag gaa yi tey lii laa leen indiloon focus gaa yi yes weekend yaa ngeen jëf.